maam abdul aziz mi ñu daan soppu bay wayal ak a ñaan fii ci réew mi lu masa ñaan yàlla buur defal na ko ko maam abdul mi ñu bilaay ak a ñaan fii ci réew mi lu ma sa lay lay la laa maam Abdul jëmmam nee na mes waaye moom mbaaxam gaa ngi dees daa imaan jëfam ji di fees loolu réew mi seede na ko billaay sopp bay wayal ak ñaan naan ma saña billaay yàlla mam da baax dee bettu ko fu ma dem waxe ko dëju Lamin Géy seede na ko Sénégal ñépp jooyandoo mam billaay sopp bay wayal ak ñaan fii ci réew mi yàlla boor defal na ko ko mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen baalu àq te di leen baal àq bu ngeen déggee loolu bu ngeen déggee woote boobu su ngeen déggee noonu nga xam ne noonu la sëñ Idda dugge ngeen xam ne nag ñu ngi jëmaat ci bés ba ban bés la bés boobu nga xamante ne nii ki nga xam ne moom amul lu dul yoof ki nga xam ne moom amul lu dul tarixa cheikh ki nga xam ne moom amul lu dul ëttu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam amu ci xaj ak seen kooku moo am bés te bésam boobu nag mooy le 7 juin moom la ñuy waajal moom moo tax ñu toog fii moom moo tax ñuy mooy illay lii nga xamante ne nii moom mooy suñu toogaay le 7 juin boobu buñ ca demee ñu koy wax takkusaanu maam El Hadj Abdoul Aziz boo ne El Hadj Abdoul Aziz sañ nga saa teg njaga Issa Sey kon nag le 7 juin moom la ñuy waajal nii muy takkusaanu El Hadj Njaga Issa Sey soppee maam Abdoul Aziz Dabakh fan la le 7 juin fële ca bayal ba nga xamante ne moom la ñu duppee bayalu Cheikh Mansour Diouf jàpp fële ca watu marché bu yoof bés boobu nag mu yemboog ajjuma ren jii di septième édition bés boobu nag 9h dañu fa wàccee kaamil bu ñu wàccee kaamil ba noppi nag moom am na ci bés bi lu mu ci dugal mu di dafay dem ci daara yi parce que leen kenn ku ci nekk mu jox la la nga xamante ne nii moom lay jox haddiya muy haddiya sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di haddiya cheikh al abdul aziz bu ñu ci jogee 9 euh, jo def 11h remise de don 17h30 nag foofu sa bayalu Cheikh Mansour Diouf am na fa xadaratul juma bu mag bu ñu fay def ànd ak mbooleem regroupement des daayira Tidiane de Yoff foofa noonu sa bayalu Cheikh Mansour ba ñu say yoo képp koo xamante ne ni taalibe Cheikh nga di wax yàlla nañu say yàlla yóbbu ak jàmm bu ñu demee nag ba 20h30 20 nag foofu nag la tàkkusaan gi nag daal di tàmbalee tàkkusaan googu nag ki nga xamante ne nii fi ñu toll nii ah kooku day képp koo xamante ne nii yaa ngi suivre réseaux sociaux yi yaa ngi koy gis muy taggakatu euh, Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu invité ko ci bés bi mu ñëw nag jàppale ñi nga xam ne ñoo ñoom ñoom Abdou sekk ñoom Idrissa ñooñu lay ñëw jàppale ñooñu lay ñëw ñox ñooñu ku ne njagay sa tudd ñooñu ndax ñoo ànd bokk tante yi ñoo ànd bokk fu lu ñuy yëkkindoo ñoo ànd bokk lu ñuy defandoo bés boobu nag moom tamit invité la bu espécial boo xamante ne nii sañ naa sax ne du ma dugg ci turam waaye ku ñëw ca bés ba da nga gis loo xamante ne nii di nga xam ne am na ak coppite si bés boobu noonu ndax bés boobu 20 h si la ñuy commencé nag lii di takkusaan gi takkusaan la de waaye ku fa ñëw.

waaye nag ñu ngi woo yoof gépp yoof gépp bañ a dugg ci bilim waaye teg tekka ci loxo ka nga xamante ne nii moom mooy sunu soppe moo ñu bëgg ñu di noo ko bëgg muy kan muy le le grand imam ratib muy imaamu imaamul akbar muy kan mu El Hadj Mouhamed Ndoye ah El laa koy wax Mouhamed Ndoye moom moom day ñu ngi ko ci jox cër bu am solo. di ko wax ne ñu ngi koy woo ci bés bi di ci woole mbooleem muqaddam tiijaan yi nekk ci yoof di ci woo mbooleem ki nga xamante ne murit nga tijaan laayeen yal nañu ci yàlla yóbboog jàmm yal nañ ci dugg ci bisimillahi rahmaani rahim te génn ci ci alhamdulilahi rabbil alamin kon nag ku dégg woote bi xamal ne njaga isa sëy mu ngi lay woo le 7 juin si bayalu Cheikh Mansour Diouf si tàkkusaanu Cheikh al Abdoul Aziz bi muy def chaque année ren ji septième édition mu ne bàyyiwul kenn góor jigéen mag ndaw ganaar yi yeewoo yoof xar yi yeeg ñëpp bàyyi ñu leen ne ñëpp ñëw ndax njagay sa bu wootee ñëpp a ñëpp war a wuy see rawatina nag kilifa yi jox nañ leen seen cër képp kuy ndombo tànk képp kuy ndombo tànk fii ci yoof nañ ko daan defe nañ ko daan waxee rek ñu ngi lay wax ne la ñu ngi lay woo ci bés bi jàppal ne bés bi sa bés ndax bésu njagay sa say seen bés la kon nag ñu ngi leen di woo ci bés bi yàlla na yàlla sunu boroom may nu wér ak fekkeek tal ba nu dugg ci ci bismillahi rahmaani rahim te jeexal ko ci alhamdulillahi rabbil alamin kon nag waa yoof woote baa ngoog bu leen fa kenn jiit yéen a moom bés bi yéen a moom tàkkusaan gi ndax njagay sa seenam njagay sa la rawatina nag ña nga xamante ne ñii ñooy soppey sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku dib jullit rek ñu yaa nga ca biir yal nañu sa yàlla yóbbu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu العليم من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مبك جلتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيوني ني نيب فتبارك الله دي تي جيتال كليفة ديني اك كليفة عادي في تي يوف خيو خو جام فتبارك الله بسبن مو جوت بس شال حاج عبد العزيز دباخ بيغا خامني فتبارك الله حاج نجا عيسى سوبر دباخ nga xamni mom moom léppam Cheikh Hadji Abdou la alalam yéreem dalam bubbam du ko fekkee ci bo tuddé gor gogu Cheikh Hadji Abdou Aziz mu amal ko bis bu reuy nak bis bob mo ngi amé fan fi ci bayal Cheikh Mansour Diouf suñu soppe suñu xarit di tàkkusaanu Cheikh Hadji Abdou nga xamni fa tabarakallah li ci aju yëpp a ibrahim wax nako waye nak ñu wote rek ci tàggkati Seydina muhammadi yi fa tabarakallah yi tambalé tongor balayen ndax njaga soppi ñepp la rawati ne kep ki tag sayyida Muhammad ñom Pape Mbeng fa tabarakallah kulim joom juum ñoo ngi woo képp ki tag yonent bi ndax mam Aziz kat ne nabi Qalat wa azami wa matqadun riyai sama deret, sama yuq sama yah. lepp fa tabarakallah jende naa ko Muhammad kon koku kat soppe mbi di Cheikh haji Njaga ay sa mbay nga xamne tankam lu kenn kenn kenn lu way sumbu rek njaga baccale ndalako yaa xam ngay def xew-xewu diine yaa xam ngay def xew-xewu aada kon kooku nag bu wootee fa tabaarakallaahu yoof gépp a war a bàyyi lépp ñëw sagal ko ci bisam boobu ndax ko amul lu dul bis benn bis boo xam ne fa tabaarakallaahu ci at mi soppeem maamam sëriñam la koy defal monsieur El Hadj Abdou Aziz am ci ndigeelu sëriñam sëñ Mbaye Sy Abdou kon yoof gépp nañ génn ñëwal ko ci tàkku tàkkusaan boobu mi vendredi la set incha allahu rabbi yàlla nañ ci fekkee tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim eggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin di ci woo kilifa yëpp suñu soppe yi imam bamba sàll muhaddam aas saltiga mëma mbeng nga xam ne ñun bañ tàmbalee ba tey ñun ak moom donte nag takk na ndoom ma tànk waaye dafa am beneen cër ci diine ji am beneen cër ci tarixa bi am beneen cër ci njagaayi sa mbaay kon ñoo ngi ko ci woo bu baax a baax a baax woote wi daal ku ko dégg jàppal ni mooy sa carte invitation ñoo ngi woo jullit bu góor di woo jullit bu jigéen di woo turux yëpp yëpp yëpp ndax Cheikh Hadj Abdou amul frontière fenn فن فن فن فتبارك الله نيغي وو يوف جيب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على أسف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تسبكتر فيجن بليس تي في ah yof mbolo TV ñu ngi leen ziar di leen jox seen wàccuwaay bu baaxa baaxa baax di nuyu mbolam ñi ñuy seetaan si ñaari télé yépp ah di wax ne kon fi gaay jaar rek la jaar waaye dugg ci directement xuus ba si biir biir inshallah ah di wax ne nag ñu ngi sant yàlla bu baax ah si le 7 juin bi nga xamante ne nii la xaas njaga amal ku wax njaga ndëkk wax organisation ah ndax njaga mënuñu ko wax. te génn si organisation xadara populaire ak lu ni mel ndax essence boobu noonu mooy li ko jiite kon bu jëlaatee mbir mi delloowaat buy buum sa mboy mboy ba wàcce na ah di wax ne nag ñun ñoo si des ñun ñi nga xamante ne nii organisation yoof ñun la ko yàlla teg suñu loxo di njiitu rek si oote yi waaw di ko njëkk a teg si loxo le président international El Hadji Maam Ousmane Samb moom mi nga xamante ne au niveau de yoof espace bu mag bi moo ko géré muy koskaas ñu ngi koy oo bu baax a baax a baax di oo booleem njabootu Koskas di ko teg si loxo Papa Khalifa Diop As ak Moussa Ndiaye ñu génn njaboot gi yëpp ñu ñëw le 7 incha allah à partir de 7 heures ñëpp fekk mbir mi ñëpp taxaw mi mbir mi parce que dañ bëgg pendant avant ak après ba bu tasee lépp lu fa ne si wàllu matériel ñu buubandoo ko yëkkeendoo ko yóbbul ko seeni borom si jàmm di fa jóge di ko teg si loxo itam Assane Sylla Thiaw président Ahmadiyya waaw ñu ngi koy oo di oo mbooleem ñu mu jiite parce que Tiwaawan mënoo wax ñaar ñooñu nga si organisation bi waaye bu ñu jógee dem si regroupement des daayira Tiijaan bu yoof waaw parce que bépp daayira boo xamante ne nii moo nekk yoof si ñooñu la aju kon ñooñu ñu ngi leen di oo di ko teg si loxo papa iliman jin. waaye di oo waa daayira taawanu alal birri wax tax waa parce que ku wax njaga wax taawanu kon xam nga ne organisation boobu noonu président papa wad. ñu ngi koy teg sa loxo directement di la wax ne yow ax njaboot gi nga àndal yëpp amoo leen droit tardé si bés bi waaye amoo leen droit yéex wala ngeen yoon jeex si bés bi bu buñ fa jógee nag ñu ngi oo képp kuy daayira képp kuy daayira nga nekk yoof ñu ngi lay oo ngay wuyoo baatu tiijaan ñu ngi lay oo waaye sax ngay wuyoo baatu ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ñu ngi lay oo si bés bi di oo gaay yi soppe yi ah vraiment ngi oo ñëpp parce que ni ko gars yi waxee rek ku ne njaga doo ne yoof de da nga naan Sénégal ndax njaga Sénégal gaw ma ne am na kenn ku mu tëng xamlu kon ñu ngi bàyyiloo xel ñëpp bés bi muy la set di wax ne à partir de 9h si kaamil bi ñun 7h dinañ fa nekk nekk si wàllu lalam basang yeex yooyu buñ sa jógee kon ni ko suñu kilifa waxee xaasi ipin ipin sec dinañ àndandoo defandoo don yi waaye bu ñu fa jógee lu jëm si wàllu rasim seize maire ah ak ah lu organiser bés bi ba mu jag ah ñu ngi siy oo ñëpp di wax ne loolu daal lañ si doon sànni si lu gàtt lu si dënga ñu xam ne jaam bu matadi ndaw liñ yónni moo matul li mu doon waaye lu si jubtam ñu xam ne borom beeka namme noonu di wax ne nag waa organisation xadara populaire président organisation xadara populaire mooy wax ak yéen baaluñu kenn may ñu kenn mu tardé ñu ngi ñëpp si bés bi nañu ko taxawé kon niñ ko ngor joge to tóngóor taxawé kan dina joge dina taxawé ka ngapparu ala rawati bu njagay sa bi parce que nag bi moy finition mokkal leçon bi allahumma salli ala sayyidina muhammad ñu ngi jéggal auzu minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa ñu ngi nuyu ñep ñu ngi nuyu ñep di nuyu wayof jep di nuyu mbokk yi di wote nak bàyyiwuñu kenn di woote takkusaan yi maam Abdou di bëgg ñun ñëpp rek ñu fekk si alaaji Njaga ay sa mbaay ndax alaaji Njaga sa sëy ba xaarul kenn xaarul kenn si bésam lu waaye xew la suba ba ngoon rek mu nga ca léegi ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñu kenn ñu ngi woo mbokk yi di woo li ko dalee tongoor ba apegsi bàyyiwuñu kenn di woo xeet yi ci yoof yi yëpp bàyyiwuñu kenn alaa rawata nag xonq bopp yi ndax nag ah njage sa sunu doom la te bu ngeen ma gisee nii xam ne man mi xonq balaa xonq bopp laata ma yaayam kon nag ñu ngi oo xonq bopp yëpp bàyyiwuñu kenn pour ñu jàppale ko si bés bi ñu ñaan si yàlla rek yàlla nañ ko fekkee te tal ka si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmani توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين mbokki yoof maa ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen tegal wàccuwaay di sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi salallaahu alayhi wa di sant suñu wayjur wu jigéen Adja Awa Seck di ñaanal yàlla suñu wayjur wu góor borom tëraay sa Thiès yàlla yeesal yow ma ngi ñu ngi koy sant bu baax tey nag kan moo xewleeti alaaji njaga muy lan septième édition am tàkkusaanu maam Abdoul Aziz Sy radiallahu taala anhu man nag ku ma dégg may wax rek xam nga ni may Adja Fatou Diop Sey waaye may ma mama Amazone de Diouf Sarr ci lañ ma gën a xam ab njaga nag gore lool ne Abdoulaye Diouf Sarr tu seras toujours le parrain d'honneur am na ay parrain waaye Abdoulaye Diouf Sarr nangul nañ ko parrain d'honneur am à vie donc may oo képp kuy soppe Abdoulaye Diouf Sarr terme nord ba jàmmalaay APEXI ba tóngoor képp koo xam ne sopp nga Abdoulaye Diouf Sarr rek bésam bi nga ñëw gunge ko ci ñu fekk El Hadji sa Issa di ñaan yàlla fekke ko tal ko mën ci lu baree bari bi jaayi seydil wujud seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam aouzu billahi min acheytan rajim بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم صل على من كان يرى من قلبه كما يرى من أمامه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني ومن لنا إليه وسيل الكاسف العمامي قال سرين بابك رضي الله تعالى عنه خطب الوجود الذي أبدى ولايته ربي وآدم بين الماء والطين mbokk جلدي mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan mbokk yoof mbokk ngor mbokk wakaam mbokk Cap-Vert mbokk Sénégal yëpp mbokk àdduna bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baal wax di jiital ci nuyoo bi suñu soppe suñu sëriñ suñu xarit suñu lépp muy Serigne Babacar Sy Mouhamadoul Mansour xalif général des Tidianes teg ci rakkam ju tedd ja Cheikh El Hadji si Sy Maodo teg ci seen rakk ju tedd ji nga xamante ne dëgg Serigne Babacar Sy Abdoul nga xamante ne suñu bunt ci kër maam Cheikh Seydi El Hadji moom la ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wérle la baay ya amoon ci moom yaakaar maam ya am ko ci moom yaakaar tey jii ay magam am ko ci moom yaakaar si Malick yàlla na yokku si Malick yàlla na ko yàlla gën a dëgëral mu jox ñu ndigal ci lii ñuy def ndax ginnaaw yàlla yonent bi ndey ak baay amuñu lul kër Cheikh Seydil Hadji Malick rawatina moom Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz bu ñu ko yëkkati woon mu ñu teg ko ci suuf it dañ koy teg ci suuf kon bu ñu ci joxee ndigal ngir ñu def tàkkusaanu maam Abdou gi ren di suñu septième édition kon si Malick ñu ngi koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér ak wérle ci barkeelante mboole ku mu bokkal maam Cheikh la Hadji Malick ci lan muy tàkkusaan bi nga xamante ni moom la ñuy defar Cheikh Alhaji Abdou Aziz Sy Malick chaque année fii ci Yoff comme ni ko sama euh, Thomas waxee muy euh, Jibril Diop euh, Seck noonu la amee wax dëgg yàlla muy bis boo nga xamante ni ñu ngi koy ànd ak ñëpp rawatina nag jiitalu ma ci kenn lu dul ñi may àndal fii ci biir Yoff di tagg yonent yàlla Muhammad rawatina Abdou Aziz Seck mi nga xamante ni ba ñu yàlla boolee man ak moom ak léegi mu ngi bëgg a yàgg te boobu ba léegi muy rafet kon wax dëgg yàlla ci seen tur laay wootee ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñu ngi oo ñëpp bàyyiwuñu kenn ñun dëkk alalu Yoff lañu ñun alalu diine ji lañu alalu kër maam seex Sidi Hadji Malick ak mboolem këri diine yi nekk ci dëkk bi bàyyiwuñu kenn mënuñu koo wax tamit te duñu tudd suñu waa kër maam Seydina Limaamu di ci jiital xalifa ba muy Mamadou Makhtar Laay yàlla na ko yàlla gën a dëgëral ndax dëgg yàlla ni ma bokki kër Seydi Hadj Malick noonu laa bokki kër Seydina Limaamu ci deret ndax kumbandooy la ak jas ma génne ci jas ma mu génne ci kumbandooy kon euh, wax dëgg yàlla kër ma mu laa bokk pire kon ñoom it ngi leen di oo ci bés boobu ñuy defar Cheikh El Hadj Abdou Aziz di ci oo borom ndomba tànk yëpp bàyyiwuma kenn jaraaf yi saltige yi ndey ji réew laman magu yoof président jàmburu yoof bàyyiwuma kenn képp ko nga xamante ni rek takk nga ndombal tànk biir yoof rek maa ngi lay oo ci tàkkusaanu maam alhaji abdoulaye ba bu ñuy def le 7 juin fii ci bayaalu Cheikh Mansour Diouf su ma jigee ci loolu maa ngi oo ki nga xamante ni wax dëgg yàlla ci wàllu administration moom la yàlla dogal tey jii nii mu jiite yoof muy le premier magistrat de la commune de yoof muy Seydina Issa Laye nga xamante ni tey ji loolu la yàlla dog muy suñu soppee di suñu xarit di suñu lépp moom nga xamante ni wax dëgg yàlla yàgg nañu jëflante ay waaye nag maa ngi woo ki nga xamante ni nag sama diggante ak moom altine ak talaata la bés doxu ci muy sama soppee di sama xarit di sama lépp lépp lépp moom la muy le ministre Abdoulaye ju saar nga xamante ni maa ko bëggal sama bopp te yàlla rek tax muy jëflanteeg man ay teraanga di jëflanteeg man lépp lu ma nekk rek monsieur le ministre Abdoulaye Diouf nekk na ci ak man ba mu jeex kon monsieur le ministre maa ngi lay jégal bés bi ni ma la ko waxee woon yaay parrain d'honneur bi yaay parrain d'honneur bi loolu la yàlla dogal ndax ragal péete day xañe cër te wax dëgg yàlla ndëg yaay sama féete bëgg naa ñëpp ànd naa ñëpp ndax man nee naa yof aw ma ci sens interdit képp ku manti doon rek sama soppe nga sama xarit nga sama lépp nga waaye ndëg dëkk boo gis day am xaritoo te yow sama xarit nga yow Abdoulaye Diouf Sarr loolu la yàlla dogal kon maa la ci oo bu baax di ci oo ñëpp ma kenn waa Pastef képp koo nga xamante ne yaa ngi biir yoof di politique rek maa ngi oo ci bés ndax ñun yoof gépp ñu bokk amul xàjj amul seen kon ñu ngi ci oo ñëpp ñu kenn di oo xarit yi di oo soppe di oo am di jàmm yi di oo ñi nga xamante ni yàlla dogal na ñoom lañu dara jaale bés bi moo xam marraine yi moo xam parrain yi ñu ngi oo ñëpp rawatina nag sama famille bopp bi ma bokk muy famille xonq bopp di ci jëli xam te ni mooy le coordonnateur national muy El Hadji Djibi Diagne nga xam ni parrain la ci bis bi moom maa ngi ko ciy oo bàyyi ma kenn di oo monsieur Ousseynou Thion moom it sama xaritoo ak moom kenn dootu ko laam-laamee lépp lu muy def ci wàllu diine Ousseynou bala cee def dara deneen kat kaay ñëw def ko kon Ousseynou maa ngi koy oo di oo Moussa Sène di oo ñi képp koo xamante ni yaa ngi biir yoof rek maa ngi lay oo ndax ñun ñëpp ñu bokk di oo penc yëpp bàyyiwuma benn penc li ko dore kër Limam ba kër Youssou Diène ak nouvelle cité yi maa ngi oo ñëpp soxna cabati di sama soppe moom it soxna Cabati Thiaw maa ngi ko di ci o ñëpp bàyyiwuma kenn képp koo nga xamante ne rek yaa ngi biir Yoff maa ngi la ciy oo bàyyiwuma kenn soxna Maymuna Samb maa ngi koy ci bés bi di ci o ki nga xamante ni moo di soxna Ndey Xadi Diouf maa ngi koy ci bés bi bàyyiwuma kenn képp koo nga xamante ne rek euh, yaa ngi euh, yeewoo yoof maa ngi lay oo ci bés bi ñun nag amuñu ku du Cheikh El Hadj Abdou Aziz di ci o tamit sama soppe boo nga xamante ni wax dëgg yàlla tamit sama diggante ak moom Yoff gépp ko xam muy Cheikh Mansour Diouf moom it muy parrain d'honneur nga xamante ni ci bàyyaalam laa koy defee waaye moom moo ma ji loolu ndax man Cheikh Alhaaj Abdoulaye laay wooteel te maam Abdou léppam dafa tàppe woon xol yi lépp doon benn man aw ma xàjji amul murit amul laayeen amul tiijaan ñëpp laa bokk euh, di wuy ji ñëpp ndax loolu la sama sëriñ bëgg mu Cheikh Hadj Abdou Aziz moo tax ñu tàmmu bayaalu Cheikh Mansour Diouf di ko fa defee bayaal yi bari na yoof waaye du ñu bëgg a wan yoof ni leen lépp benn la na ñu yëkkateendoo di tegandoo ngir ëllëg bu ñu dajee ci kanam borom borom bi xam ne ay jaamam ca Yoff àndoon nañ seen lépp ñu defar ko benn moo tax ma jël ko di ko defee bàyyalu Cheikh Mansour Diouf muy parrain d'honneur moom it maa ngi koy oo ci bés bi di ci oo ñëpp ma kenn bés baa ngi noonu daal le 7 juin la incha allah à partir de 9h dinañ jàng alquran bu ñu demee ba 11h dinañ dem ci daara yi li ñu war a jëflanteeg ndongo yi ndax alxaaj Abdou ku ne xamoon na ni da daan dimbali néew ji doole rawatina daara yi ñu dem la ñu yàlla may ci suñu wërsëg ñu bokk ko ak ñoom buñ ci paree nag bu ñu demee ba 17h30 ñu tàmbali xadaratul juma bi bu ñu xadaraa ba julli timis ba pare 20h30 nag incha allah dinañu tàmbali tàkkusaan bi ku nekk xam na ni nag wax dëgg yàlla ni ma bokkee Yoff noonu laa bokkee Thiès te Thiès nag wax dëgg yàlla doon dama doon jëflante ak ñoom avant may ñëw Ndakaaru ren jii nag ñu jël bés bi sédde ko waa Thiès ñu leen kat seen bés la moo tax ñu jël ci wàllu tagg yonent bi invité ci ki nga xamante ni moo di Serigne Babacar Kassé nga xamante ni ñoo àndandoon bokkoon benn groupe ca Thiès daan tagg Seydouna Mohamed ñu ne ko leen ñëwal nga fësal sa yéene ba ñu xam ni fàttewuñu suñ cosaan ñu démb ak kan Tafsir Abdourahmane Gaye nga xamante ni mooy bokk na ci ñu ñu tette bokk na ci ñu ñu jàppale tey ji ba ñuy dégg fu ne kon Tafsir Abdourahmane gay sa digganteem ak sama waajur tamit ku nekk xamoon na ko Mamadou Seye yàlla na yàlla yokku leeram taas ñu ci barkeem kon Tafsir Abdourahmane Gaye moo koy def ci wàllu waxtaan di woo tamit ñi nga xamante ne ñooy daara yi Xadijatu euh, nga xamante ne ñoom it marraine nañ ci bés bi ñoom ñu ngi leen di oo ci bés bi bàyyiwuñu kenn képp koo nga xamante daal ni ma ko waxee marraine nga wala ngay parrain rek maa ngi lay oo ci bés bi bàyyiwu ma kenn di woo samay bokk góor ak jigéen ñi ma bokkal askan wi ñëpp ndax ma lu ma am ci àdduna samay mbokk moom ma ko gënal kon maa ngi oo samay mbokk yëpp rawatina di oo samay mbokki soxna mi nga xamante ni ñooy waa ndiireen téye ma jàppale ma ku gis toogaay bii nga xamante ni su ma amuloon jàmm fii du ma ko fi defee ba di fi toog ba sama soxna di ñëw ci sama wet di fi toog di oo sama goron di ko ci jiital muy soxna Mariama Seck maa ngi koy oo sama yaayi bopp jooju nga xamante ni moom moom moom boo boo bëggee jot rek laal ma du lekk sax ma wallahi alazim yàlla xam na ko maa ngi ko ci oo di ci oo njaboot a di oo waa ndiireen gépp bàyyiwu ma kenn bis baa ngoogu le sept lay doon incha allah fii ci bayalu Cheikh Mansour Diouf képp lu waay di def nag biir yoof dugal naa ci sama loxo amul kenn di def yof gi ma toog man njagay sa ni du ma ca dem wala duma ma ca def déedéet dinaa ñëw taxawu la ba mu jekk ma demaat sama yoon kon tey jii su ma xewlee amul lu bésu Cheikh El Hadj Abdou su ma soñoon waa yof gépp ñëw fekke ko jàppale ma ci bés boobu kon maa ngi oo waa yof gépp bàyyiwuma kenn bés baa ngoogu lu dul jàmm jàmm gon yan yàlla defal jàmm lu dul ànd àndu gën yàlla na yàlla tàppe xol yi ñu ànd nekk benn di yëkkateendoo di tegandoo ngir yàlla yërëm ñu fii yërëm ñu fële ci barkeenante bi mbokk yi bés baa le 7 juin bayalu Cheikh Mansour Diouf ñu jàkkaarloo ak tafsir Abdourahmane Gueye ak Babacar Kassé ak ñi man ñoom Abdou Aziz Seck ñi ma àndaloon fii di tagg yonent bi ñu fas yéene bégalante ci Seydouna Mouhamed fas yéene bégalante Cheikh El Hadji Abdou ngir lan ëllëg yàlla réem ñu kon mbokk yi bés baa ngoog le la incha allah maa ngi ciy woo ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. kon nag mbokk yi woote baa ngi noonu ni ko ñëpp waxee ñëpp dégg nañ ko. kon nak ñu ngi leen di woo le 7 juin le 7 juin ci tàkkusaanu suñu maameel haji Abdoul Aziz Ndiaga ICC yi di ko organiser ren di 7e édition bi fële ci bàyyalu Cheikh Mansour Diouf kon nag mbokki julit yéen ñu ñuy seetaan ak di ñu déglu ñu ngi leen di wax ne kat kii nga xamante ne nii moo nekk ci sama càmmañ muy sunu yëfu bopp yàlla sunu borom sédd na ko fii ci Yoff muy ndey Thiaba Ndiir ne mu ngi woo mbokki ndiireen ji mu ngi woo mbokki waa kër yaawa sàmba yi mu ngi woo képp koo xamante ne ni yaa ngi yewoo ci yoof ndax moom tamit moom mooy yoof yoofay moom ndax na loo xam ne buñ ci duggee duñ ci jóg kon nag mu ngi woo képp koo xamante ne nii rek yaa ngi bokk ak moom maam awa sàmba wala yaa ngi bokk ak moom mandiiri njallu mandiiri faaboo yi yal nañu sa yàlla yóbbu ak jàmm ñu ngi kàmbi su ndiireen waa kàmbi su ndiireen kon nag yéen mbir bi seen mbir la bés bi seen bés la bu leen ca kenn jiitu bu leen ca kenn mujje yéen moom bés bi yàlla nañ sa yàlla yóbbu ak jàmm na ma ko daan waxee rek ndax ñu ni tamit kenn ku ci nekk xam na ne amuñu segg ak seen fii ci yoof li mag sama wéjur wa daan wax naa yàlla na ñu yàlla may ak dégg waaye yàlla na ñu yàlla may ak dégg tey la ak dégg gën a wóor tey la ak dégg gën a am njariñ ndax jamono ju ñu toll ku ci amul ak dégg rek amoo dara kon nag yàlla na yàlla may dégg mooy képp kuy wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa ñu ngi lay wo ci bés bi nga jàpp ne bés bi sa bés la ñu ngi wo comme niñ ko waxe mbooleem ku fi kilifa mbooleem ku yewo yof di kilifa ngir bañ dugg ci lim bi ndax bo limé xel man na fat waye ñom xam nañ seen bop ci lim bi namu tollu ñu ngi leen di wo ci bés bi bés bi seen bés ndax ñun de amuñu xàjj ak seen amuñu frontière fi ci yof ñu ngi wo ñëpp yal na ñu ñëpp a dégg waaye tamit na ma ko waxee woon rek dafa am koo xamante ne nii man de damay wax ni moom day kenn ci man mani tamit ma xam lool fa nga xamante ne nii moom laa féete ca moom muy kan muy suñu imam ratib muy ki nga xamante ne mooy imam Mouhamed Ndoye bés bi bésam la ñu ko koy sédde ndax ku wax Cheikh Al Abdoul Aziz wax imaam imam Mouhamed Ndoye ku ne xam na nan la jeexe ci moom kon nag bés bi moom itam ñu ko koy delloo di ko ci sédd di ko ci woo ak mbooleem imam ak ulema yi yeewoo fii ci Yoff ñu ngi leen di woo ci bés bi xam ne bés bi seen bés la ñu ngi woo comité de gestion yi nekk fii ci Yoff comité de gestion bu nekk rek mooy fekki penc kon nag penc yëpp ñu ngi leen di woo di woo ñëpp bàyyiwuñu kenn yàlla rek a mat yàlla rek a kamaal ñun ay jaam lañ matuñu ku dégg woote bi na nga xam ne rek mooy sa carte invitation ku dégg woote bi na nga xam ne mooy sa cër ci bés bi fàttew ñu kenn waaye fàttew ñu tamit kenn ka nga xamante ne nii moom i tamit fàttew ñu bàyyiwuñu liw muy El Hadji Ngalam Mbeng kenn sañu ta wax tàkkusaanu saanu Cheikh al Abdoul Aziz wax tàkkusaanu Njaga Issa Sey te waxuñu ci sama doom jooju mu di El Hadji Ngalam Mbeng El Hadji Ngalam Mbeng ñu ngi lay woo ci bés bi xam nañ ne def nga ko ci bésu bopp démb bi tey laa ñëw kon nag ñu ngi lay boole ci bés bi di la wax ne bés bi sa bés ñu ngi la cay woo di ci woo waa Ngapparu gépp di ci woo waa Yoof gépp كيف كوي واه اشهد ان لا اله الا الله كوم نيمكو واخي واشهد ان محمد رسول الله نغا خامني بس بي سبيس ا ندي ندور تاميت ندي ندوي ندور بس بي سبيس 7 اديشن لا ني واخ بريمير اديشن باتاي نيكا سوسون باتاي فاتيو ني سي كين fàttewuñu seen ku dégg woote bi rek nanga xam ne bés bi sa bés la kon nag yal nañu sa yàlla yóbbu ak jàmm yal nañu si dugg ak jàmm yal nañu si génn ak jàmm yal nañu sa yàlla may yiw ak sutura jën say wut ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nag ñi ñuy seetaan à travers